jàmm Balla Gaye Ziguinchor amuñu problème ba nga fay dem naan da nga yóbbu ba bombardier boo daanoon balagay boo daanoon doo yóbbu bombardier Balla Gaye kon bombardier moo war am fulla am fayda mu ne demuma ci ay caravane de la paix boo leen ko bëggee dangeen ngeen di bàyyi sàcc yéen ay naafeq bu bon ngeen ay paasaale bigé la xaw ma ay naafeq bu leen ñu sonal ak jàmm bu leen ñu sonal ak jàmm ak ak ak salaam bu leen ñu sonal jàmm boo leen ko bëggee da ngeen di bàyyi élection yi ngeen di sàcc mais c'est très simple waaye bëgg sàcc élection yi ba pare kenn du marche ah làmb yi ñàkk jom yi pas yoo xam ne ñoom seen bopp rek seen bopp rek na leen Macky Sall jox benn cent mille wala deux millions wala trois millions ñuy rey nit ñi di wax ay caravane de la paix ay caravane mais bala Gaye mooy kan Balla ma Gaye mooy kan ba war a wax waa Casamance bu leen génn xeex Wally Seck mooy kan ba dem Casamance def concert naan étudiants yi bu leen ñëngal mais yéenay kan booy jakartaa yi ñu ngi nii xañ leen seen dépense bu ñu génnee ñu sànni leen ay lacrymogène mais leen ngeen bëgg jaay Sénégal Balla Gaye da ngeen ko utiliser woon pour comme dafa dafa bëri supporter comme ça bu gañee xale yi fàtte élection yi nekk ci làmb bi rek di wax Balla moo ko daan moo ko bot moo def lii moo def laa ay waay Balla c'est le meilleur Pa Gueye Pa Bécaye Mbaye génn naan Balla Gaye il fait partie des deux trois meilleurs lutteurs de tous les temps mais Pa Bécaye Mbaye yow yow nit nga Balla Gaye nan lay nekkee meilleur mit lutteur de tous les temps te papam gën ko aay papam gën ko aay ah dubales mais yow li fi Boy Bambara def est-ce que Balla Gaye def na ko dama lay laaj ndax li Mbaye Gueye Tigre de Fass def est-ce que Balla Gaye def na ko li fi Tafa Gueye tif Tigre de fas ah mais Balla Gaye defet yi muy tegle temps yi nga bëgg wax ne c'est le meilleur lutteur meilleur lutteur doo ko xool ci nekk na champ nekk na roi des arènes mais Balla Gaye Bombardier am na nu muy demee moom Bombardier sax moo koy gën a baax palmarès parce que fin de carrière bi baaxul gis nga bu ñu koy wax dañuy xool discipline dañuy xool sa carrière yëpp mais pas Bécaye Mbaye ñoom ñëpp dañuy politique Balla Gaye li ñu bëgg jël defaraat ko Gaston Mbengue ngi nii nee na doot bàyyi Balla Gaye mu bëre ak ak Boy Niang ñun ñun contre ñu Balla Gaye mais xam nga lan la ñu contre le fait ñu bugg ko utiliser pour politique. yaa ko tëggal quatre combats lu tax lu tax mu tëggal Balla Gaye quatre combats pour nelawal xale yi mais yàlla boo nekkul ci dëgg yàlla da lay da lay da toroxal waaw xaalis bi ngeen jox Balla Gaye moo lewul Gaston. moo tax yàlla toroxal ko defetu Balla Gaye bii moo gën a ñaaw defet yi mu am yëpp bi moo ci gën a ñaaw bu Eumeu Sène bi sax Eumeu war ko di ko dóor boobu sax garaawul parce que boobu xëy na entraîné wul te wane na jàmbaar waaye bii Balla Gaye dafa daw di fecc dafa daw defet bi moo gën a ñaaw ci defet Balla Gaye ñu daan ko arbitre bi jàpp ci ñu woowaat ko ñu daanaat ko cinq avertissement arbitre bi jàpp ci man waxoon naa leen combine bëre la man maa Mister Shake man bu ma leen di wax de leen ma déglu ñun contre ñu Balla Gaye mais gis nga tànk mi nga ànd ak Gaston Meng ak ak ñii waa APR dinañ ko um parce que yàlla moo leen jéppi Macky Sall lu mu def yàlla tuur si euh, euh, euh, ndox mu sedd ndox mu tàng bokk gis nga même équipe nationale bi mu bëgg jël naan day jéem a politique

Sonko mo ëpp moo gën a siiw Balla Gaye Casamance bu len ñu sonnal ak caravane de la paix de la paix bu len ñu bu len ñu dam ak caravane de la paix jàmm boo leen ko bëggé mais bu leen sàcc élection yi c'est très simple jàmm boo leen ko bëggé Sonko bu démé Casamance Doudou Ka bu mu jël ay nervi diko ko song mais nafiq yu bon yi ah ay pa Ahmed Khalifa Niass nga xamné ne temps yële dafa jàpp Macky Sall yakko ko lu ne ah yàq Macky lu ne recevoir Sonko lu ne mu wax ko Sonko daaw tey moom la ñu gis mu jàpp fi Macky Sall di wax ay troisième mandat rek ma xam may vraiment Sénégal nan la ñuy avancer nan la ñuy avancer bu fekkee ne ku nekk rek bu la Macky Sall woowee jox la benn vingt millions rek nga jaay Sénégal paa yu paa yoo xam ne riba rek la ñuy lekk paa Ahmed Niass lan la nam lan la namm moom bu jugee mu ne dem na fu ne roi Assane de recevoir la Kadhafi recevoir na Fidel Castro recevoir na ko fu ne dem nga wa legui yow lan nga nam sam sa xana xolo sa sa rak Sidi Lamine milliardaire mu tay genn aduna te ñu ngi nan sax mak est-ce que Macky Sall faagaagalu ko ci lamb bi di nelawal xali ñun dañu tal lamb ñun dañu football sax ñu senegal yàlla nañu tok premier tour ah man sama ñaan dafa dal de gaay yeen ñi faral Balla gay ngeen baal ma de baal len ma de waye dama neewon woon gay Gaye na daanu. loolu laa waxoon de Balla laa faraloon mais dama ne na daanu parce que mu daanu moo arrangé Sénégal parce que fi mu nekk luy kontaanloo Gaston Mbengue dañ ko war a bañ luy kontaanloo Aliou Sall dañ ko war a bañ te ñoom dañu bëgg Balla Gaye gagné ñuy nelawal xale yi xale yi nekk fi di ataaya di ci wax trois semaines dootuñu sax tal football bi gis nga football bi sax xale yi talluñu ko ñi ngi naan te gisu ren gisu leen benn chanteur bu woy Lions yi. gisu leen Selba Ndom di wax senegal moy gagné top premier tour yalla ñu top parce que dëkk bi moo met xool leen terre bi rek ñu ko doon jiroowee ah ba nit ki ñu kepp ceebam ceebu ñangu mbab ñu kepp ko ci bir ci bir train bi bo démé du sax ñangu mbab waji day rafetal rek waa day rafetal nan damay yar ay ginar damay yar xar bo démé mom ci bopam loolu lay jox wa kërëm ñu lekk train bi dégg naa dañ doon sumbaxloo dañ doon dañoo bëri 600 personnes di njëkkante pour dugg ci train bi loolu lay wane ne Macky Sall am ñi paas jamonoy corona jamonoy corona corona bi mu ngi leen di bëgg rey ñu naan soj soj bi moo ma sonal du soj de corona la maa ngi dégg Zal Yebe sax di ko wax naan temps soj bi dafa bëri du soj corona bi mi ngi leen di bëgg rey heureusement ba bii bii du reye waaw omicron bi moo leen di bëgg rey ñu naan soj bi mais nga rey mais gars yi xooluñu xoolu ñu dara di njëkkante ci train lu tax parce que amuñu téeméer téeméer bi ñu nar a fay Dakar ba ba ba Pikine ñu ne wuu xaaral ma dem ci train bi Sénégalais yi ñoo sonn mais ñàkk fayda démb laa seetaan benn extrait nekk ci biir stade ba ambiance bi nekkoon ci stade bi stade bi mais c'est pas sérieux nekk fa naan oh oh weew bur yalla ñu ngi lay ñaan xamna naa Balla Gaye lañ doon way Balla Gaye jël ndam gi mëne xolal ma li rek xolal ma li rek nek ci bir stade bi di Marima, di mérité ngeen Macky Sall yeen ak dëkk bi fi mu toll ngeen di sétane ay Youssou Ndour man billahi wallahi ta'ala bayina sétane seetaan Youssou Ndour concert bi xoluma ci xolal une seconde gisumako man dama am ful la jaajëf mam seen gis nga mam seen Sénégal yi dañoo ñak fayda man démb laa xol gis ñuy way ci bir stade o oh oh wo wo yàlla ñu ngi lay ñaan mané wuy sama nday mais yow lamb bi li yeb amon na fa ay marimba bala gay di bakku di marimba di marimba ki lañ ci indi Pa bekay sax mu ngi leen di xass ay way Sénégal wo pop pop mam mam sen amna ben video vidéo bu bo def temps yi vidéo 30 30 minutes li nga wax ci li nga wax sa vidéo bi yëpp xamatuma sax lan la rappelé ma lan nga wax ci Mambay man li may seetaan ci vidéo dafa bëri mam seen génn na benn vidéo def naa ci sëriñ yi nga doon wax xaw ma ci ñeen nga doon wax billahi wallahi taala li nga wax la mais yow am jot di seetaan ay lamb man boo gisee ma seet ma sawar sax seetaan li Balla Gaye daanu moo tax ma seetaan gars contre ma Balla Gaye de ngeen baal ma contre ma man Aliou Sall laa contre Aliou Sall Gaston Gaston Mbengue léegi day protéger Balla nee na Balla Gaye du bëre ak Boy Niang tant que Balla fajuwul Balla fan la feebare fan la feebare feebarul non sœur la non sœur la yéen a ko yàq yéen a ko jël jox ko komba combats ah jël ay ñaaxarañ loo def ko star ñu koy snabal yéen a yàq Balla Gaye mu naan dafa feebar bàyyi leen ko mu bëre ak booy ñaa booy Niang defar ko bagage loolu la bañ Gaston Mbengue nee na day dàq day dak lamb boy ñaa Balla gay léegi Balla il faut mu beure Gris parce que gëm yaakar na ne Balla dina daan Gris Bordeaux mois de mai mais nee bu Balla gay wërul wërul da koy dak ba juillet Balla gay kan la feebar Balla gal kan, kan la feebar leen Balla gay bi ngeen di protéger feebarul dara jotu ko mom mo no sœur la yéen a ko def star comprendre moom Modou Lo rek la yëpp gaay wax nañ ko booy bi géejawaay wax nañ ko ñoom làmbaloogu wax nañ ko Balla Gaye Modou Lo la yàpp bu amee combat ak Modou Lo parcelle ak kii mu jug dem entraîné ba nga ne kii dafa dof waaw waaye bu dee ay bombardier ak ñeneen yoonam nekku ci Balla Gaye noceur la ah Malick Thiandoum di ko interviewé nan ko da ngaa feebar danga ngaa feebar mais Malick xanaa di nga bàyyi mu ne la man damaa feebar ah yéen kii dañ kaa duma dañ kaa duma dafa daw parewul Balla Gaye parewul dafa sonn biir bi di lang ah biir bi di lang mu nekk fa naan day cinquante personnes ci ci ci ci géew bi dégg naa dañ fa nekkoon di taal yow dimbali ma nga naan ma Siteu Siteu arrêté lu may arrêté ah gënu leen ma bëgg Balla Gaye mais tant que mi nga ànd ak lekk ko te ribaay yi yàlla da koy toroxal Youssou Ndour def ay concert xaw ma daf ko maye xaw ma concert gratuit mais dégg naa stade bi dafa fees dell ni senegal yin yin yin yin da ngeen di nelaw yeen seen dekk bi di waja a tàkk ngeen balma seen dekk bi di waja tak ngeen nek fi naan da ngeen di setan da ngeen di setan ay làmb Gaston Mbengue xana du mom mo fi xon kep kuy jaaz dañ la wara a taal muy circuler ci dekk bi nan wooy Balla gay bu bu nekul en forme du beure tay nga yow dégg euh euh, euh, euh, euh benen waji beneen promoteur bi nu mu tudd Nicolai def conférence conférence de presse ñu ñuy wax ay.